Fatou njaay ñu gën ko xam ci madame Dieye di soldaaru Fatou Diané njiitu programme de la microfinance islamique ñu gën ko xam ci promise dina nag boo xamante ni mi ngi jàppale askan wi jigéen ñeeg ndaw yeeg ñëpp ngir ñu mën a matal seen ay projet ci fan bu mën a doon moo amal nag déclaration bi ngeen bëgg dégg di danka foog artu di leeral également seen mission ndax jàpp na ni jamono jii de bu dee si wàllu frigo yi am na ñu jóg ngir taxaw tem di laaj nit ñi xaalis bu ñu tegul fenn te nag ouverture des comptes yu ni mel dix mille francs rek la du cinquante mille du trente mille du quarante mille Faty Ndiaye madame Dieye dina si ñëw si lu mu gën a leer a leer mbokk yi ñu teewlu ko. dafa gis jigéen ju jàmbaare jigéen joo xam ne ni c'est femme battante. dëkk ci région de Diourbel di doomu Diourbel président xool liggéeyam bi nga xamante ne si dafa am solo mu di ko def ku xam madame Guèye Fatou Diané xam ko ci développement ku xam madame Guèye Fatou Diané xam ko ci bëgg am réewam mu nekk une vraie battante ma di ko woowee la lionne de la région de Diourbel ndax njàmbaarteem président gis li muy liggéey ci développement ndax soo demee Jurbel gee mu dëkk nga gis kër jigéen gi fa ubbi mu jagleel ko jigéen ñi waaye biir kër jigéen ñi am différent unité unité ya fa nekk moo xam céréale local jigéen ñi di ci yëngu moo xam wàllum boulangerie jigéen ñi di ci yëngu moo xam wàllum élevage bi nga xamante mooy yarum ginaar yi jigéen ñi di fa yëngu ndax ginaaru kër jigéen ñi mu nga fa wàllum huilerie bi jigéen ñi di ca yëngu waaye itam li nga xamante ne si mooy savonnerie bi ak lu aaju ci eau jigéen ñi di ca yëngu Fatou Diané madame Guèye ginnaaw bi mu demee bitim réew jàng am fay lijaasam macha allah yor ay diplôme yu kawe munoon na toog bitim réew waaye dafa ne déedéet li nga xamante ne si jàng naa ko am ci xam-xam. waaye dama koy booleeg sama doole dellu samam réew bi mu ñëwee Sénégal mu teg loolu ma la fi doon wax léegi président de la république son excellence di xeex lépp loo xamante ne si mooy chômage chômage des jeunes surtout soo demee Jurbel nga gis ndaw yu bëri ñu ngi liggéey ngir lan moto jakarta yi mu jënd jox ko ji góor ñi nga xamante ne si dañ ci liggéey ci wàllu transport ndax cag-cag yi soo ko gisee moto jakarta yi ñoo koy def taxi moto yi moto jakarta yi ñoo koy def waaye itam ñi nga xamante ne si ñooy livré mburu mi moto jakarta yi di ko def wàllum financement xaalis directrice Fatou Diané di ko def mu dugg ci biir département bu Mbacké muy jàppale jigéen ñi te booba président dénk bu ko promise kon damay faral di ne président de la république juumul ba mu ko dénkee promise ndax bam ko dénkee promise dafa ñëw ubbee promise ci bunt bi bunt bi mooy fan dëkkub Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool bii di Touba directrice Fatou Diané ne foofu nga xamante ne si fa la ñuy defaroo ñun fa lañ jëm ubbee ko fi ne promise a ngoog département bu Mbacké promise soo ko déggee muy financement islamique nga xamante ne si charia la amul daray bàkkaar amul intérêt amul dara directrice Fatou Diané dugg si ci biir dëkk bi ci li ko président dénk kon président de la république juumul ba ko denkee promise ndax dénk na ko jàmbaaru fàq tëdd boo xamante ne si développement rek moo ko ñor am réewam doo nga ko ñor waaye itam liggéeye ko ñor promise bi mu fi ñëwee mu ne bedduwuñu kenn bodduwuñu kenn y a pas de coloration politique mu ne askan wépp lañ ko jagleen moo xam góor bi moo xam jigéen bi moo xam mag moo xam ndaw waaye bi fi ñëwee aussi mu ñëw signé convention ak jigéen ju jàmbaare une femme battante une femme boo xamante ne si aussi yi doonatul ku nuy présenté benn day sëtu Serigne Touba waaye beneen ba mooy jigéen joo xam ne dafa jàng moom itam ami sam xam li muy def yore mutuel am bii di Touba Daaru Salaam kooku defe naa ne suñ ko waxee xel day daal di dem ci soxna Astou Mbacké Gaye ma di ko nuyu de passage di ko di ko ziar lu bëree bari soxna si itam ba ñuy signé convention bi ak léegi lépp loo xamante ne si liggéey bi laaj la ko mu ngi koy def ndax nag xamul dara lu dul liggéey gëmul dara lu dul liggéey amul temps lenn lu dul liggéey ubbil porte jigéen ñëpp nag loolu aussi ñu koy saluer jigéen ñi ñëw boobook léegi di jël wàllu wi nga xamante ne si dama ko cee yor muy frigo yi directrice dafa ne nañ ko jox jigéen ñi ci anam bu yem ndax noonu la daan def balaa promise di ñëw dafa ne jigéen ju ci bëgg dan koo jaarale ci mutuelle Touba Darou Salaam bu soxna Astou Mbacké Gueye waaye itam dafa am ay norme norme yi lan la soo yoree sa photocopie carte d'identité sa ñaari photo yu ndaw sa certificat de domicile plus sa 10 000 francs sa ouverture compte sa compte boobu ngay tijji loolu moo lay permettre la ngay verser ci sa frigo mu di fa jaar frigo yi nag dafa am yu euh, différents catégories moo ci nekk am na yu 240 000 am yu 340 000 yu cent 240 yu ñu di ko joxee ba cëg 1000 francs dama ne ndimbal munta wees loolu ndax ki nga xamante si dafa ñëw laajtewul avance laajtewul caution mu ne jigéen ñi am leen lii waaye da ngeen koy faye ci anam bu yem nga xamante ne si moo leen di dimbali parce que bëggatumaa gis jigéen joo xam ne dafay toog ci taatu garab yi wala jigéen joo xamante ne si dafa yaafus toog defut dara mu ne jigéen ñi nañ jàpp ci dara politique naam baax na waaye directrice Fatou Diané ne politique de développement la ñu wax te it la république loolu la woote ñu seetlu ne boobu ak léegi biñ ko kiiyee macha allah jigéen ñaa ngi ñëw ñu ngi leen di jox frigo yi ñu ngi bénéficié wu mais am ci ñoo xamante ne si dañoo dugg ci biir ngir yàq liggéey bi ci euh, njàmbaarte gi nga xamante ne si euh, jàmbaar nañ ko ci tax ñu découvrir ñenn ñi nga xamante ne si dañ ciy def sabotage sabotage bi mooy au lieu de 10 mille francs ouverture compte ngay laaj 20 000 francs ouverture compte wala ngay laaj say ñooñ ay 40 000 francs ouverture compte dama ne nanu bàyyi yàq gi ak caaxaan ndax promise du ay caaxaan du ay fo nun en tout dinañ ci jël bépp matuwaay boo xamante ne si képp ku ci wàcc yoon dinañ la teg ci yoon képp ku ci jalgati dees na la teg ci yoon ndax nag ci réew de droit la ñu nekk liggéey bii nga xamante ne si directrice Fatou Diané daf ko fee wàccee daal di ñu jox ay directive mooy li nga xamante ne si ku ci bëgg a bénéficier wu xam nga fa ngay jaar soo ñëwee ci mutuelle bi ñu la jox renseignement yi soxna Astou Mbacké Gueye di suñu kilifa fii pare ci jekk ci ouverte ndax ku ñëw mu dalal la ku ñëw dana la expliquer ku ñëw dana la déglu waaye itam boo fi jógee di nga fi jëlee explication yu clair te net loolu mooy dëgg gi kon ñi nga xamante ne si dañoo nekk ci suuf di yàq il faut qu'ils arrêtent mënuñu yàq liggéey bi parce que nag ay jàmbaara ŋànk liggéey bi kilifa gii di Fatou Diané ah du yaa fus de kon defe naa ne ba du jël n'importe qui teg ko ci lii nga xamante ne si président de la république da ko ci yaakaare kon maa ngi soññ sama mbokk jigéen ñi di soññ jeunesse bi di soññ aussi ñi nga xamante ne si ñooy mag ñi nga xamante ne si bëgg nañoo bénéficier wu ci promise ñu ñëw fii ci mutuel Touba Darou Salaam bu soxna Astou Mbacké Gueye en tout cas man madame Dieye soldaaru Fatou Diané comme ni ñu ma koy wax ni ma koy faral di woowee saa su ne jekk nañ ci li nga xamante ne si mooy liggéeyu promise lépp lu mu laaj pour une réussite parce que loolu mooy li nga xamante ne si directrice Fatou Diané bëgg na ko te ci loolu la ñuy dox guddi ak bëccëg ci loolu la ñuy dox suba ak ngoon lii mooy li nga xamante ne si ñu ngi ko doon lancé képp ku ci bëgg am lu leer bul taseeg nit ci mbedd bi mu ne la promise nangam ak nangam nga gëm ko liggéey boo gis dafa am yoon promise ku ci bëgg a am firnde gu leer ak ku ci bëgg a am lu leer ñëwal fii ci mutuelle bi daañu la teeru daañu la euh, expliquer waaye daañu la teg aussi ci yoon loolu daal euh, la ñu bëgg a tënk en grosso modo. mbokk yi Magog di nag euh, lu ñeel wàllu frigo yi nga xamante ni ñu ngi koy joxe ngir nit ñi di verser ba mu mat nga moom sa frigo waaye nag am na ñuy démarché nekk ci suuf di laaj xaalis boo xamante ni kenn laaj loolu leen ko talool nag day taqal derub waa promise bi nga xamante ni li ko tax a jóg mooy jàppale jigéen ñi ak ndaw yeeg ñëpp daal ñoo xamante ni bëgg nañoo bénéficier wu si wàllu finance islamique fii si Touba nag kenn ku bokk si programme bi doon si kàngam di Faty Ndiaye madame Dieye soldaaru Faty Diané moo doon amal leexal yu nu mel.